boobu nga xam ne ren ñu bëgg góor jigéen la euh, te bi bi ñu xëyee papaam bi doon Seck génn na défendre ko wax ne képp koo xam ne nee nga Wally Seck góor jigéen la nga jël sa doom ànd koog moom dem sali wax ci yow mi nga xam ne yow yaa njëkkoon génn attaqué Wally Seck mu ne loolu sa problème la lan nga ciy tontu. Euh, li may njëkk a wax mooy loolu indiwuñu ci waxtaanu euh, tey bi dama wax rek ni artiste boobu Wally Seck mi ngi def ay jëf. ak di sànni ay message yoo xam ni ñoo ñuy wax LGBT lañ ko gën a miine ak seen couleur ak yu mel noonu ma ne kon rawatina sëriñam bi nga xam ni moom lay damoo en publique na ko yedd wax ak moom ndax loolu rôlu sëriñ la li ma dégg nag ne papaam wax na ko mu ne imam bi loolu mu wax affaire la d'accord naa ci sama affaire la moo tax wax naa ko kon loolu laay tontu foofu